hasard, dans deux mois, Macky faisait de Abdoulaye Daouda Diallo le président de l'Assemblée nationale, par exemple. En disant effectivement, moi, Ablaye, oui, tu m'es très loyal, tu es un ami, tu. Sorry, tu trop, tu es mon choix de cœur, mais la réalité fait que. Mm tu pourrais avoir des blocages d'un point de vue sociologique. Parce que aussi ici, quand quelqu'un demande quand quelqu'un va mhm. face aux électeurs il faut qu'il sache bien parler la langue du pays oui non je peux dire ça peut être un blocage. Ah man sama wolof day man su may wax wolof day tax tugal. déedéet déedéet cuks buy wax wolof non non non eh, sama grand frère cuks. non non non non non loolu da nga koy récupérer. waaw da nga wax wolof macha allah waay cuk naam cuk lan la. waaw da wolof la. sa waay nee na wolof ngay rap. sa copain ma ni cuk naam cuk lan la. grand Cuks. waaw waaw grand sama grand frère Cuks. waaw indi na grand frère. bon sama grand frère laay jël c'est l'exemple le plus patent yàgg na Dakar dégg na wolof il comprend tout. mais dans la délivrance. bu <laughs> doon dem campagne ça loolu ak a bëri ñu Malal man loolu dafa ma jaaxal ci Karim Wade nga baal ma rek. par exemple man Karim Wade bu ñëwoon Sénégal. par exemple dama jàpp ni waxtaan ak Bawol. mais loolu dama jàpp ni Karim. non loolu blocage la. dama jàpp ni Karim ñaari affaire a tax mu ñëw. mooy euh, découragé na si Sénégal. parce qu'il a mal vécu son emprisonnement. mais beneen facteur bi mooy. c'est le wolof qui la langue de campagne. la wolof est une langue de campagne. loolu loolu la yàlla def boo ñëwee di wax ay wolof bu leerul gars yi duñ la comprendre Karim ne pourrait jamais faire une campagne électorale peut-être que ab Abdoulaye Abdoulaye pourrait avoir un problème dans ce sens beneen affaire bi ci topp mooy. il pourrait dire Abdoulaye il pourrait dire à Aly topp leen ci ginnaaw Amadou bu ma bu faloo def le premier ministre. loolu mun na nekk mais li intéressant ba intéressant mooy euh, toi tu parles tout à l'heure de la candidature de Mame Boye Diao. Mm-hmm.